actuellement nag xeex bi euh, trois points refandi revendicatif li yu gën a fës lañ am mooy de un rétablissement de la coordination parce que actuellement dañoo dissoudre coordination bi te mënuñu nekk ay représentant d'étudiants te mënuñu dëkk dans une université sans représentant même collégiens lycéens tous les autres universités ont des représentants donc ñun mënuñu nekk à Bambey nekk étudiant ak Bambey nu mu bëri problème c'est la seule université qui se trouve dans dans capital capitale départementale problème yi bëri na fi donc mënuñu dëkk di jàng Bambey sans représentant problème numéro 2 bi mooy gars yi dañoo bëgg administration bi dañoo bëgg imposer benn section unique te section unique boobu lu ko indi du suñu fët mais peut-être contexte bi moo ko imposé woon léegi nag euh, Bambey euh, avec les deux sections taux de réussite bi mu ngi nekkoon à 15 pour cent donc bu ñu bëggee def section unique quasiment dañuy dañuy bëgg sacrifier tous les étudiants parce que dinañ dàkk ñu bëri ñi dinañ perte une année deux ans sax lay wax parce que année bi diire na deux ans ba pare à part la troisième point bu ñu gën a marqué mooy ñu def éclaircissement si la mort de notre camarade Badara Fall qui a Badara Ndiaye qui a subi une alimentaire au niveau du restaurant Europe du campus 2. Et pour l'instant, ils, ils, ils, avaient dit qu'ils allaient faire une autopsie et que l'autopsie n'a rien montré. Mais nous savons tous qu'il a subi une intoxication alimentaire. Mais le directeur Cruz n'a pas une intoxication Le directeur Cruz l'a dit, mais nous savons qu'il a aliment. Il y avait plus de 200 étudiants qui ont Euh, lekk nañ ci te ñoom tamit ñoom ñëpp dañoo amoon tous les symptômes d'une intoxication alimentaire xam nga état bi moom ils ont toujours tort et dans leur tort ils ont toujours raison parce que dañoo am seen dëgg bopp te ñun ñëpp xamoon ne affaire bi foofu lay mujjee. su ma boobu fii ci Bambey loolu lan la. boobu ba léegi tamit recteur réagirul directeur CROUS réagirul dañoo inerte inertie boobu tamit mënuñu ko accepter il y a une inertie totale de la part des autorités locales euh, on dirait qu'ils nous ignorent quoi. Hmm. jëm ngeen pour wax ak oui def nañ ay demande d' audience yu bëri même président parents d' élèves yu nekk si région de Diourbel yëpp def nañ leen benn demande d' audience mais ba léegi recevoir ñu def nañ fi marche pacifique dem ba préfecture tamit xam nga balaa ñu dugg si violence bi dañoo commencé woon par la voie pacifique ñu def def ko def fii marche au niveau du camp euh, jusqu'au niveau de la préfecture mais jusqu'à maintenant sans suite ba léegi sax woowuñu. Euh, bon bi lii dàqul moom certainement dañu continuer mouvement yi rek parce que dañoo wax ni arrêt des cours et front jusqu'à front continu donc jusqu'à nouvel ordre chaque jour dañuy wàcc ci tali bi bloquer circulation bi jusqu'à ñu am réaction de la part des autorités parce que autorités yu nekk ci ci université ba léegi réagiruñ donc nous interpellons le ministre euh, Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation et aussi le président de la République à réagir parce que actuellement ils 15 années d'études. Ils veulent multiplier les 15 années d'études par zéro. Et c'est une chose que nous n'allons pas accepter parce que tout notre avenir en dépend.